Médina Cheikh TV, notre chaîne de lumière. Médina Cheikh TV, beneen bi nee na mooy wa mooy mooy liggéey ci sa biir këru sayxu tarbiya waaw xam nga bu ñu ne liggéey ci këru sayxu tarbiya nag ñoom it dafa am nu ñu koy jàngale am na ñu ko jàngale façon bu bare am na sayxu tarbiya yoo xam ne soo demee ci ñoom. nee na ñu liggéey ci sa këru Seexu Tarbiya mooy doo dem fenn doo def dara da nga fay toog rek di liggéey am na ñu wax loolu ay Mawlaay Cheikh moom waxul loolu am na ñeneen ñoo xam ne dañu jàngale ni da mel ni comme néew rek doo def dara lu ñu la ñu defal nga def lu ñu la ñu bàyyi nga bàyyi kon da ngay toog benn place rek waaw waaye Mawlaay Cheikh jàngale ko noonu ndax bu boobaa bu dee balaa ngay def dara sëriñ ba wax ko kon nga fitnaal ko ci wax waaw dund ci sa bérébu sayxu tarbiya am barke am barke nee na mooy fexe ba lu fay lu fay taar lu fay rafet lu fay jëriñe nga bokk ci ñi ko fay njëkk def lu fay yàq nga bokk ci ñi ko fay njëkk dindi lu fay jëriñe nga bokk ci ñi ko fay njëkk samp lu fay lore nga bokk ci ñi fay njëkk dindi waaw organisation boobu boo ko boo ko defee nee na ngërëm ga de waxuma moom mu jug gërëm la de mais ngërëmal bërëb ba mooy dugg ci yow. tànn naa tey Medina Cheikh TV bërëbu leer leer bërëbu Cheikh Tidiane Chérif mi nu jox Seydi Mouhamed El Cheikh sang bi di fi jàngale di fi seddale leer yi moom Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh sunu yaakaar